innama al amalu binniyaati wa niyati tabarruku bi saadaati asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fu waay mën a ne yéen mbokki taalibe yi ak fu waay mën a ne ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam te fas yéene ñëw tey ànd ak seen site Assalaamy TV mu lëkkaloog seen chaîne YouTube xam sa diine TV ñu fas yéene def jàngat yu am solo ci majmuha bi nga xam ne maam Serigne Sylla moo ko defoon mu jëm ci njàngaleem Serigne Touba ak i ndénkaaneem majmuha boobu nag Serigne Abo Kebe moom soxna waalo moom Serigne Saliou moom Serigne Touba def na ci taxqiq bu am solo. ndax tur wii mu am tey moo ko ko wuutal muy jawaamiul kalim fii ma a an il abdil xadimi min ulumin xikam loo xam ne nii day dajale li mënta ñàkk ci ay wax ci xam-xam yi nga xam ne mi ngi bàyyikoo ci Sëriñ Tuuba ak xikma yi jóge ci moom muy yoo xam ne ku ko topp mën jariñu tey mën a jariñu ëllëg kon maj moo xam boobu maam sëriñ si la defoon moom la sañ Abo kewe taxqiq taxqiq bu am solo ci biir taxqiq boobu nag comme niñ ko waxe tur wi rek ak tegtal la jawaamiul kalim fi ma warada anil abdil xadimi min ulumin wa xikam ñaareel ba xamle na kan mooy maam Serigne si la incha allah dana ci ñëw ci kanam ndax nit booy jàngat. ab taalifam faaw nga wax mooy kan ba ki koy topp gën a mën a jariñ ñaareel ba majmuha bi maam sëriñ si la defoon wutal na ko ay tem wutal ko ay tiitar nga xam ne kiy jàng dana mën a xam nan la koy toppe léeg-léeg mu indi la bunt bi nga xam moo jëm ci aaye alxuraan yi bunt bi jëm ci wàll soobu jëm ci yàlla bunt bi jëm ci nàngam ak nàngam turi kilifa yi nga xam ne rot na ci biir téere bi tamit ñooñu dana leen génne wax seen histoire wax ñooy ñan kon muy taxqiq bu am solo boo xam ne nii sëriñ Abo Kebe moom soxna wàllum sëriñ wi def na ko ñu ngi ko ci jaajëfal liggéey bi nag li ñu ci yóbbu te xiir ñu ci mooy liggéeyal suñu boroom ak liggéeyal sëriñ Tuubaa sàkku ngërëmam ci tasaare am njàngaleem ngir nit ñëpp mën a xam dëgg dëgg am njàngaleem te mën koo topp ñu ngi ñaan képp ku ci jot nga tasaare ko loo man te ñaanal ñu ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa mi tax ñu koy def incha allah da ngeen ci ñu mën a topp ci seen chaîne YouTube yooyu ñu leen wax Assalaamy TV ak Xam Sa Diine TV jimom bu jot ak dimaas bu jot incha allah kon téere bi ndénkaane yu bari mi ngi ci yoo xam ne ni yu am njariñ la ci wàllu xam yàlla ci wàllu pas-pas nan lañ war a a gëme suñu borom ci wàllu firi alxuraan ak yenn xam-xame alxuraan yu ruqa yi yu sew yi ci wàllu tasawuf tamit am na ci ci wàllu suubu jëm ci yàlla ak xam suñu boroom ak ñi xam yàlla nan lañ mel ak sëriñ si nga xam ne dañuy tërbiye nan lañu war a mel murit saadix bi bëgg sëriñ bi bëgg ni mu bëggee mu mel ko nan la war a doon dana ñëw tamit ci loo xam ne nii aju na ci ngëneeli sëriñ Tuuba ak i karaamaam ak yeneen xikam ay sagesse ak i ndénkaan yoo xam ne ni jóge na ci sëriñ Tuuba xaadim rasul kon téere bi muy téere bu am njariñ boo xam ne ni képp ku ko topp rek danga ci jële njariñ yu dul jeex lii nag ñi ngi ko def ci càkkutéefu ab sëtam bu ñu wax sëriñ Omar Silla di doomi sëriñ Mahmoud Silla ca Touro Ndula moo ko sàkkoon ci ñun jox ñu autorisation ñu def ko ginnaaw biñ ko rafet loo xam ne lépp liggéeyal sëriñ Tuubaa la te loolu rek mooy suñu liggéey te nag boo xoolee ci téere bi day sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo ko dégg ci sëriñ Touba directement wala mu nekk loo xam ne nii da ko sukkandikoo ci am mbindum sëriñ Touba moo xam ne nii amul kenn ku dox ca digganteeg moom wala loo xam ne nii da ko tuxale ci ku tuxale ci mbindum sëriñ Touba directement. kon nga xam ne lépp li ci nekk lu wér la kon nag dana baax bala ñoo jàll ñu xamle kan mooy maam sëriñ Sylla aarif billaahi la woon mu ngi tuddoon Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmadu Ndumbe Maar Sylla moom ku bokk ak Serigne Touba Baye. Mm, di soxna Aïchatu Mbàkke mooy waajuram jigéen soxna Aïchatu moomu doomi maam la waajuram góor nag di Mouhamad Sam Asta moom moom doomi soxna Asta Mbàkke moom maam Balla la soxna Asta moomu waajuru jigéen la yaay ju ndaw yi ku baax ki la nga xam ne moo ko ki ko jur ki jur baayam mook Maam Mor Anta ñoo bokk baay kon gis nga ni mu jegeeg sëriñ bi waajuram wu jigéen mook sëriñ Touba ñoo bokk benn waajuru góor waajuru jigéenu baayam mook Maam Mor Anta ñoo bokk benn baay kon noonu la deme ci maaram moom maam sëriñ si la mii nag maamam ju siiw jooju ñuy wax sëriñ tay Tayba Ahmadou Ndumbe Marsilla la kooku moom xam nañ ko bu baax ndax bokkoon na ci xariti Mamour Anta Sali moom sax moo ko jullee bi mu génnee àdduna moom maam sëriñ si lemi nag mi ngi gane àdduna 1889 ci dëkk bu ñu naan Tayba ñu ngi ko tuddee sëriñ Touba mi ngi yaroo ci baayam boobu sëñ Masamba Asta fa la yaroo ba nim matee dal jàng baayam tàmbali koo jàngal alxuraanul karim ci riwaayatu imaamu Washaan Naafi ci ni ko waa réew mi tàmme ci jamono jooje ginaaw bi mu motli ci nijaayam di ñu wax sëriñ Njaga Mareema la ba man mokkal ko ba man koo tari man koo bind te du ko xool waaye nag fekkoon na suñ boroom def na ci xolam mu bëgg sëriñ Touba lool nga xam léegi-léegi sax day jóge foofu ñëw ci sëriñ Touba mi aw turandoom ba am na boo xam ne nii jóge na foofu ba ñëw fekk ko daaru minam daarul mannaan te booba sore na lool ak fam nekkoon nga xam ne lii sax moo waral lu bari ci ay mbokkam jaayanteeg sëriñ Tuubaa ndax buñ ko daa seet si ba ñëw ba gis sëriñ Tuubaa jeexit gi li muy dund jeexital ci ñoom ñu mujj jaayanteeg moom ginnaaw bi nag la ko sëriñ Tuubaa digal diggante 1902 ak 1903 mu dellu ci waajuram bu góor àggale fa njàng mu xam-xamam ca la dem nag nga xam ne waajur mu góor ku bëri woon xam-xam la nga xam lu bari ci wàllu fiq tawxiid tasawuf wàllu balaaxa naxwu adab yëpp da cee mujj géeju rawatina nag xam-xamu alxuraan bi nga xam ne moom daanaka moom moom la gënoon a sopp nga xam ne lu bëri xam na ko ci sew-sew yeeg yi nga xam ne xóot-xóoti alxuraanu karim la kon kii di maam Serigne la moo def téere bii nga xam ne moom kenn nettaliwu ko lépp moo ko doon dund ak Serigne Touba lépp mu toxale ko ci Serigne Touba leen li mu toxale ko ci mbindum Serigne Touba wala mu toxale ko ci mbind mu jóge ci mbindum Serigne Touba mu nekk koo xam ne ne ku liggéeyal diine la ku liggéeyal yoonu murid la ci wàllu xasida yi ci wàllu alxuraan bëri na lu ñu référé wu tey ci moom mi la jóge kon incha allah loolu lañu ñu war a ànd ak yéen ci programme yi ñu leen wax àjjuma bu jot ak dimanche bu jot ci seen chaîne YouTube Assalaamy TV ak xam sa diine TV ngeen di ci ànd ak seen mbokk bàyyi daa Mbay doomi Serigne Khadim Mbay Touba Longhor jërë ngeen jëf. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات